UCAB FM li gën a ndajeem M2D doon kuréel gi nga xam ne ko ñoo nekk ci kujje politique yi doon jàppale Ousmane Sonko ci weeru mars wala nga xam ne moom moom doon dellu si nag di fàttaliku fitna ji nga xam ne kon amoon na ci biir réewum Sénégal yéen kaay xëy di xam le rek ne waa d doon doon doy waar le quotidien yéen kaay la défense de la démocratie M2D ñoom nag ñoom ñoo yëkkati seen ay kàddu ne nag dañoo bëgg a dem nga xam ne ko ñoo nekk ci bitim réew ngir jéebaane li nga xam ne kon moo xewoon ci biir réewum Sénégal ci weeru mars 2021 fitna ji nga xam amoon na fi ba nag ab lim bu takku ci ay doomi Sénégal toll nañ ci fukk ak ñett bu ñu sukkandiku ci yéenekaay bi seen bakkan desoon ca loole lañu nu bëgguñu leeral ko yéenekaay bi xëy di fàttali ne nag xalaat bi nga xam ne kon moom la ñu xalaat mi ngi am ay fan yoo xam ne kon moom la ñu dellusiwaat nag at moo xam ne kon Sénégal dundoon na fi ay fitna yoo xam ne kon réew mi daanaka kenn ku ci nekk bàyyiwul nga ca xel yéenekaay bi xëy di xam ne rek ne daanaka sax dal ki day la ko war lool mooy kàddu yi nga xam ne kon kàddu yi ñaan njëkk la yu bawoon ci xalif général des mourides moo ci doxoon tànki jàmm ba nag lépp seddaat yéenekaay yéenekaay bi xëy di xamle ne eh, coowal Ousmane Sonko Adji Sarr loole nag jamono ji fesaat na lool ci biir réewum Sénégal mouvement pour la défense de la démocratie m 2 lëkkale ñenn ñoo xam ne kon ñu nekk ci kujje politique la ak société civile ñoom ñoo ko xëy génnewaat yéenekaay bi xëy di xam ne ne at ginnaaw bi nga xam ne kon lu jëm ci wàllu ko kuréel gi taxawoon na ci ndajeem taskatu xibaar yi doon na ko amal ñoom waa m ñoom nag lu jëm ci wàll ko ñàkkub bi nga xam ne kon gis ne mbir yi daanaka dara moo tax nag nee nañ fi mu toll nii dañuy waajal nag mbir mi yóbbu ko ci bitim réew ngir ñu gën ko mën a leeral le quotidien yenn kaay ñu koy nga bi xam ne kon am nañu ko ca ñoom kat nee nañu jamono ji tekkiral gi nga xam ne kon nguuru Sénégal tekkiral na ko ci dossier bi mooy li nga xam ne kon moo leen yëngal ñoom nag nee nañu jamono ji gisuñu benn enquête yi ñi nga xam ne kon ñoo ca ñàkkoon seen bakkan ci weeru mars 2022 2021 M2D yéen kaay bi xëy di xam la rek ne fi mu toll nii ñoom taxaw nañu tem lañu bëgg rek mooy mbir yi moom nañu ko leeral laas yéeni kaay ba tey ma nga ca ndaje M2D mi mi nga xam ne kon nee na cour pénal international CPI lañu fas yéene li nga xam ne kon moom moo a leeral lu jëm ci wàllu ko fitna gi nga xam ne na ko nag ci ay diggee ci kanamu xalif général des mourides moo doon ñaan njekk te nag ñoom ñu joxe woon seen kàddu lu tax sàmmontewul ak lu mel loolee dañu bëgg nguur gi nag bàyyi ci xel sunu naataango yi di fàttali ne fukk ak ñett ci ay ndaw yoo xam ne kon ñàkkoon seen bakkan boobaak léegi gis ñu ci lenn ci leeral moo tax nag ñu bëgg koo yóbbu ca CPI di cour pénal international ngir ñu mën ko leeral Vox Populi yéen kaay ba tey ma nga ca xëy di xam le ne jamono ji kay ma ngay tàngalaat la mu bëgg nag mooy leeral lu jëm ci wàllu ko fitna yi ak xooqatal yi nga xam ne kon amoon na ci biir réew Sénégal enquête yéen ba tey ca la des di fàttali rek ne kii di njiitu réew mi li nga xam ne M2D ñoo ko koy fàttali sunu naataango yi di xamle rek ba tey ne luñ ci mën di nemmeeku ki nga xam ne kon moom moo di président Macky moom nag jamono ji ñi ngi waajalaat seen bopp bu baax a ci li nga xam ne kon ñoom nag nguur gi ak li ko jë politique kon ma leen cee xaar enquête yéen kaay ne nag luñ ci mën di nemmeeku kii di njiitu réew président Macky Sall ay jëf yu bëri yoo xam ne kon koy jëf fi mu toll nii jëf yu bëri na ca mbirum politique yoo xam kon laaxu suna ca muy tey ay tegee xeer waaye yoo xam ne ñu ci bëri dañoo gis ne politique moo laaxuta ca ginnaaw yéen kaay bi xëy di xam la ne waaja